الحمد لله جل من قائل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وصلاته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 sof ak yow li ma sosoon ak yow démb ci waxtu wi dëxaloon naa la ab randiwoo neexaat na yàlla ci kartanam ak sañ ba dëggal na ko ñu war a bokk perminaatal suñu xol ci juróom ñaareeli xooteeb yàlla bi jëmee ko ci way gëm ñi juróom ñaareelu woote ba mi ngi ci suratu baqara aya deux cent cinquante quatre mu yaa ayuha alladina amanu anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yatiya yawmun yàlla ne hee yéen ñi gëm yàlla yéen ñi gëmut sama yoon newu ci waxuma ak yéen xooxuma leen xooluxuma leen waaye man ñi ma gëm rek safooma laay wax ak li ma leen di sant lu xam-xam njëriñ la seen njëriñi kese moo ca ne man awma ci benn intérêt bari na ku lay sant loo xam ne bu sottee léppam di njëriñam bari na koo xam ne lam lay tere soo ko bàyyee léppam di ko jañal di ko fankal ak lor waaye man nag safaanam ñooña laa li may santaane lépp xaw ma ci benn njariñ waaye seen njariñ la li may tere lépp amul ci lenn ci lu ma mën a lor mbaa lu ma mën a wàññi waaye daal def ko seen ak loraange la seen ak wàññeeku la li ma leen di sant nag seen njariñ nekk ca bokk na ca alal ji nga xam ne maa ko moom dénk leen ko dama bëgg ngeen joxe ko ci li ma bëgg balaa lamb bu muy lamb nag mooy bis boo ko joxewut ba xalal ja tàggu la wala yow nga tàggu xalal ji ngeen bokk teer ci ci bis boo xam ne njaay ak jënd xamatu fa njariñ ak xaritoo du fa jariñ kenn li xalal di dimbalee nit nga dugg ci giraawaal yi mu ñëw pour fankal la ko njot la du fa jariñ kon gis nga xalal ci ñett yi lay jariñ xalal dana jariñ ci jënd loo soxla jariñoo ko sa xalal dem loola nga jënd jariñ la yàlla nee na loola du eh, ah, maanaam duhut luy jëriñ ci àllaaxira àllaaxira amul lenn loo fay gis ca xuuru ayni ya nekk aljana ak luusmaa ya ak lekk ya ak noflaay ga nga ne jaay leen ma ca ngir dama am xalal déedéet yawma laa bay'un fiihi waaye tamit xalal léeg-léeg dana jëriñ ci ak xaritoo nit ki ngeen bokk xaritoo nga nekk di moom muy di yow nga tibb ci sa xalal lu bari jariñ ko ca mbaa mu tibb ci xalalam jariñ la ca mbaa mu am lu muy xëcc nga tibb ci sa alal jox ko ko mu mën koo xëcc mbaa lu muy daq nga tibb ci sa alal jox ko ko mu rëcc ca loola ngir xaritoo gi nga xam ne moo leen takkee yàlla nee na loola amul xalaqira wala xullatun waaye tamit léegi-léegi xalal da dugg ci ak giraawaali ñu nar laa toroxal ba kàmbak ak torox taxaw nga tiim ko alal ñëw génnee la ca niiru gàcca taxaw nar a taw ci sa kaw mbaa ci sa njaboot nga fankee ko ay million yàlla nee na nag kàmbak ak torox taaneeg safara ku ca na ma dugg ëllëg xalal mënu la caa sowe ndax foofa wala safaatun waaye foofa daal buñ fa heggee wal kaafiruuna xéeféer yëpp hum ñoom zaalimuuna ñooy tooñkat ya tey yàlla bëri man tey bu ne xoon wa zaalimuuna humul kaafiruuna kon ñu dee de waaye dafa ne wal kaafiruuna humu zaalimuuna tooñkat ya maanaam xéeféer yaay tooñkat ya waaye bu ne xoon tooñkat ya ñooy xéeféer ya kenn du génn ci ñun kon yàlla ni muy nosee baatam yi rek moo lay daane su ko defee kon aaya ji dafa santaane lim ñu dénk moomuñu ko moo ko moom moo bind xalal moo bind kim dénk xalal ji ndax xalal joo mën a am benn mën nga koo jëlee ci ndono ba tey kon yàlla la ko jox moo rey ki nga war a donu lam xamee woon mu jox la ko man nga koo jëlee ci fàggu liggéey liggéey ba lu mën a don bu yomb bu jafe yàlla la may kartan ga moo la may xam-xam ba moo la may xereña ga moo xam yow baykat bi la moo xam yow commercant bi la moo xam yow transporteur bi la moo xam yow bureaucrate bi la moo xam loo mën a xam ba tax loola am lu mu génnee rek la la ci yàlla defal bi nga ko génne woon mu jeex tàkk kon lim lay laaj moo ko moom ba moom ki moomoon loola mu ne kon nag jox leen ma ko mooy def leen ko ci lu leen di jural noflaay ëllëg balaa xalal jaa lamb ndax bis bu ngeen demee ba teel ci si man la ma leen santoon defu leen ko fa xalal ja lamb na mënta gëndati dara xalal ja lamb na mënta xettalee ci benn xarit benn xarit mun la caa xettali xalal ja lamb na mënuñ la caa tenu mënoo cee tenu kenn moo tax ñett yaay wax yi yëpp yàlla dafa ñuy dàqal nay bi ñuy sant tabe muy nidaa u saabiix bi ak ak saamin bi ak taasiix bi ñoom ñett ñëpp ci xalal rekk la ñuy dellu ndax bii yaa ayyuhal lazina aamanu anfiqu mimmaa razaqnaakum ba ca tegu ca beneen yaayu waaja mooy yaa ayyuhal lazina aamanu maanaam laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal asaa foofu dafa bëgg li ngay joxe nga def ko ci ixlaas ba liy yàq joxe bu ko yàq waaye beneen ba muy taasix ba nag mooy yaa ayyuhal lazina aamanu anfiqu min tayyibaati maa kasabtum ñett yëpp ci xalal lay dellu waaye comme xegsee guma ci bu juróom-ñetteel beeg bu juróom-ñeenteel bi maa ngi yow rek ci juróom-ñaareel bi doomu aadama ñaar la gën a fonk mooy bakkanam ak xalalam ba tax na ñaar yile ñooy ñaari marchandise yi nit ki gën a fonk nit ba tax na lu mu ko joxe rek jaral na ko ko loo joxe sa bakkan jaral na la loo joxe sa alal jaral na la ñoom ñaar ay séex lañu bakkan ak alal léeg-léeg bakkan daw di dabi xalal ba far def ca ñaata si bëggal jël seen xalal ñu jóg jaay seen bakkan ka bëgg lekk seen xalal ba far dee jaaree ca dee waaye léeg-léeg tamit alal ñëw fekk bakkan buñ bëgg a alal alal ñëw sowe ko moo tax ñoom ñaar ay seex lañu kenn ku ci nekk dangay ngay suqali sa moroom ñaareel ba des ca alal danay suqali bakkan ba des ca bakkan danay dem di suqali ci alal ba des ca bakkan nag la nit ki gën a fonk ci alalam bakkan nit ku ne dafa ko fonk waxatuma nit waaye su ma yeboo sax na mala yi njanaaw yi yent yent yi yépp bëgg a dund ñépp bëgg fonk bakkan xar moom donoon ak la muy dofe dofe walla am mbaam nga téye xet dóor ko jubale ko rek bu la séenee daw dafa xam ne boo ko toppee nga rey ko waaye waay moo tax kat koo gàddu li dóor ko ko jubale ko ci moom boo xàccee rek mu daw ca fas wa ca ma ca bëy ca muus ma ca xaj ba boo yëkkatee xeer rek mu daw lu tax dafa bëgg a sooye bakkanam bi te liñ koy woo bu la ci toppee nga ko waxatuma sax mala yi muy animaux yi waaye dama ne xorondong yi sax ak melentaan yeeg weñ yi dañoo bëgg seen bakkan weñ wala ci dal nga bëgg koo tàpp mu xam ne boo koy tàpp muy dee mu naaw dafa am yëg-yëg nag yoo bi noona weñ yi noona ak li lay dal yépp noona melentaan gu la màtt sax yaa ngi ko gis ma ngay daw ndax xam na ne boo ko gis di ko rey boo ko gisee rey ko moo tax gis nga melentaan ya xorondong ya ba ñu séenee Suleymaan ak armeem ba ñuy ñëw te xam nañ ne buñ leen dëggatee ñi dee kilifa korondong gaa wax ak njaboot ga leen udxulu masakinakum laa yaxtimannakum sulaymaanu wa junuuduhu wa hum waaye waaye yéen sama njaboot gi di korondong yi le gaaw leen ngeen dugg ci seen biir kër yi moytandi ko leen sulaymaan moñete leen mook soldaaram ya fekk na duñ ko yëg xoolal Souleymane sax woowoon na ko di ko intéressé na ko fekk Souleymane ca fam nekk dégg kàddu ga mu xoo kilifa korondong googa ndey saanam ne ko ah yow da ngaa ne man tooñkat la bu may ñëw di dëgg dëggate ñi di leen rey te defuñ ma dara mu ne ko xanaa déggoo li ma wax wuhum laa yash'uruuna laa wax di yow fekk na boo koy def sax doo ko yëg léegi-léegi borom doole mën naa tooñ ku néew doole façon tooñin woo xam ne sax moom du ko yëg ci néew doon rek koy yëg kon ndeke melentaan yi sax dañoo bëgg dund waxuma la nag nit ñi far nit tamit ni mu xiree ci dund noonu la xiree ci alal foo toll yaa ngee wax di jëf di pexe lu koy yokk waaye bëggoo dara ci lu ko wàññi looloo taxoon yàlla ne doomu aadama ñaar yim gën a fonk moom laa koy jaayee man tamit li ma gën a fonk li ma gën a fonk ci samay marchandise mooy aljana ku ma fa dugal teral naa la du ma fa dugal sama noon sama soppe yi rek laa fay dugal doomu aadama tamit ñaari marchandise la gën a fonk mooy bakkanam ak alalam ne ko kaay jox ma bakkan jox ma alal ma jaayee la sama marchandise bi ma gën a fonk muy aljana moo tax mu ne inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna yuqaatiluuna fi sabilillahi door a ñëw fa yuqutaluuna wa yaqtuluuna waadan alayhi xaqan am ñu jiital fa yaqtuluuna wa yuqutaluuna waadan alayhi xaqan fi tawreeti wal injili wal qur'aan wa man awfaa bi ahdihi min allahi fastabshiru bi bay'ikum lazi baaya'tum bihi wa dalika wal fawsul azim tawba aaya cent boo demee fekk ko ca kon gis nga yàlla nee na xalal rek ngeen bëgg seen bakkan yi dong ngeen bëgg kaay leen ma jaayee leen ko ñoom ñaar marchandise mi ma gën a fonk man tamit ba duma ko jox lu dul ku ma fonk muy aljana ji tekki ay jeex na boo fa xasee dugg dootoo xamante lu la naqari du ci jëf du ci wax moo tax xasanul basri yu mu ne yàlla de jaayee nañu njëg goo xam ne lu seer a seer la moo tax mu ne baayaahumullahu fa axlaa samanahum yàlla de jaay na leen te seeral njëgg lool ndax kat nit ñi xam nañ xayma buñ xamee xaymaay mi la njaay ak bénéfice ba ca ne wallahi danañ nangoo wuyu yàlla jox ko seen ñaari marchandise yi di jeex moom mu jox leen marchandise mi nga xam ne du jeex mukk muy aljana bakkan dana jeex jox ko yàlla balaa jeex boo ko jaayee yàlla mu jeex boo ko jaayee yàlla mu jeex kon jaay ko yàlla mu desalal la ko dootul jeexati xalal ji boo ko joxee yàlla mu jeex boo ko joxut mu jeex benn nga dem ba ko fi mbaa mu dem bàyyi la fi kon nag looloo tax na yàlla ne jox leen ma seen marchandisam alal ci anfiqu mimma rasaqnaakum kon nag jox leen ma ko wax na ko feneen wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafiina fiihi waxaat na faneen ne wa aatuhum mimma la lazi aataakum te xoolal yàlla baax te bëri yërmande pourtant lim ñuy laaj de moom sax moo ko moom dafa ñu koo dénk rek moomale ñu ko moomale majaas waaye moom ak xaqiiqiyu bi moo ko moom yàlla moom xalal jim lay laaj am fi ko maa razaqnaakum jooja ma maa leen ko wërsëgal maa ko mu tamit wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafiina aaya huit aaya sept jëm ba huit wa aatoohu mimma llaahi llazii aataakum tawba 33 maa ko moom lu tax mu ne maa moom ndax maay walillahi miraatu samawati wal ard ala imran aya quatre-vingt waaye gis nga miraas mi sax waxin la ndax miraas muy ndonu ku ñuy tuddee waaris muy aji donu ji waaye waay mooy ku moom kuñ moomale xalali jàmbur koo dégg ne maa ko foo jëlee lii nga ne ma koo donn waay waay loo donn moomoo ko ka ko moomoon a dee nga donn ko ci moom muy sa baay sa doom sa soxna sa mbokk kon dañoo dee ba pare njël xasal gi jox la ko yàlla na bu ne kon maay maay donu asamaan ak suuf kon fa mel ni fa xamoon ñu ko moomoon dee mu donn ko déedéet mbiram demeewut noonu maa ko moom xaqiiqatan waaye dafa xam ñu ma ko dénkoon ñooña ñëpp ma dénkoon ko bu ñu deexee la ma leen dénkoon del si xat ci man mi ko dénkaane xol loolu la bëgg a wax su ko defee nag kon looloo waral mu ne inna nahnu narisul arda wa man alayha wa ilayna yurjauna maryama aya quarante kon yàlla lim lay laaj moo ko moom yow mim koy laaj moo la moom waay waay kon gaawal nga jox ko ko waaye nit ñi la yonent bi waxoon seen xalale jañ leen donu moom lañ gën a xirit ci alal ji ñu leen laaj ñu war koo def ci yoonu yàlla danga gis nit dëkk ci quartier tabax étage yoo xam ne genn wàll genn wàllaatam xajul ca jàkka ja waaye waat naa ci yàlla jënd ci xalalam jooja moket def ko ca jàkka ja sax mënu ko ca seytaane nga buuf rek ca bakkanam ba ne ko boo ko joxee mu dem dootul ñëwati de mu ngi dëkk ci quartier tabax kër goo xam ne ëpp na cent millions te foofa mu dëkk jàkka ju yeggut mbaa juy dal bay bëgg a daanoo nga fa wallahi mënu caa def ñaari tonu ciment nekk ak sëriñ daara boo xam ne daara jaa ngay yalwaan ñii bu ñu xañee duñu reer mënu leen a dimbale xamee ay mbokk seen wërsëg wa yàlla dajale ko jox la ko ne damaa bëgg nga séddale leen ko nga jël lépp tëdd ca ne yaa ma séddale loo waaye du ma leen jox dara yàlla ne baax na jël ko jël ko yombut de léegi tey ñu jëlee la fi jàll la ñëw jël nga jaloon séddoo ko moo tax kon nag xaddim li nafsik li nafsika li nafsika shaacir ba nee na li nafsika xayran wa anta malikun ma malak min qabli min fardan wa lawnu xaalika xaalik walasta wallahi tadri ayna almasaliku saalik imma li jannati xadlin aw fil mahaliki haalik saayir baa wax jiitalal sa bakkan ci def yiw wallahi yow mi yaay aji moom liñ la moomale wa anta malikun maalak mooy yaa moom sa alal ji ñi moomali la joxe ko gaaw bala ngaa mujj nekk di ko wéet ci sa biir bàmmeel sa melo wile mujj ñuul ko ñu jël suuf sa sotti la ko ci sa biir bi nga bàyyi sa kër sa soxna yeeg sa oto yi gannaaw loo fa defutoon doo ko fa fekk nga baxe ko ñoo xam ne mën naa xam ña naan sàngara di ci di ko di ci tëddee ay jigéen di ci voyage fu nekk bon nañ bon goo xam ne sa duñ la ñaanalati kon nag defal lëppal ba defoon moo daan ratt ay nagam di jox soxna yaag doom ya soow ma ak meew ma mu feebar rek doom ja sàmmi rek ratt rekk jox ko jabaram ak doomam fàtte ko ñetti fan óoruwut mu xoo doom ja ne ko ah doom fan yépp bi nga sàmmee ba léegi indiloo ma meew mu ne ko papa baal ma ma laa fàtte woon de mu ne ko kon baax na ba demee ba wér dagale waa dëkk ba ñëpp a gën a ñàkk kenn ku nekk mu ne na xewi wenn nag lebal naa ko yàlla doom ja jooy bàyyi déexagoo miraas sa bopp deseetoo dara yow lañu xamoon jàpp ne boo dee li nga xamoon ñi xam ko ndax ña xam dara mu ne comme déewguma ngeen fàtte ma damay ragal su ma dee ba dugg sama biir bàmmeel nga gëñ ma fàtte su boobaa nag su ngeen ma fàtte fekk yàlla moom fàttewut ma wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah góor googu góoru pël gu am fulla la kon nag na ko pël yëpp waaye sa nag yii bu la gënalee yàlla perte nga sa doom yile boo leen gëmeewut yàlla ba jàngaloo leen alquran yar leen perte nga te mel ni suñ mbokkam pël ma yóbbu woon doom ja ca daara ja rek doom ja feebar mu dem jëli ko commencé bënn bët ci yërëm ko doom jay jooy mu ne ko wallaahi noppil soo tenee danaa soo tenee billaahi yow yàlla maa ngi jaayante yow sama doom ji nekkoon ca daara ja billaahi boo ma dimbalee ba mu teneexaat danaa ko yóbbuwaat ca daara ja de doom ja ximmali ko ne ko bàyyi man dootul dem daara de mu ne ko waaye noppil damay nax yàlla rek damaa bëgg rek nga tene waaye yow kay dootoo demati seen kon nag loolu baaxut nañ gëm yàlla ci suñu njaboot nañu gëm yàlla ci suñu alal jëm ñu jox te moo ko moom dénkuñu ko bu ko soxlaatee ñu tabax ko ak jàkka nañ ko ca def bu ko soxlaa ñu defal ko ko ci ñéeg doole yi dañ ko ca def bu ko soxlaa ñu defal ko ko ci daara yi alquran nañ ko def bu ko soxlaa ñi dind ci garab faj ci ñu feebar nañ ko def bu ko soxlaa ñi tabax ci ay hôpitaux nañ ko def bu ko soxlaa ñu jëngal ñu jëndal ndonga daara yi téeréem yére ñu koy jàng nañ ko def waaye jël xalal di ko korkoral doo ca lekk doo ca lele ba dee ñu boole lak xalal ya lakk la lu ko jar walladina na dahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fa bashirhum bi azabin alim yawma yuhma alayha fi naari jahannama fa tukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hada ma kanastum li anfusikum fa zuqu ma kuntum taknisuuna dara jaru ko kon nag yàlla moo ñu wërsëgal loo mën a liggéey loo ca mën a xamee yow jarga ji yàlla la ko tàggatal jox la ko boo ne bu la yàlla laajee asaka ja te moo la jox nag yeeg gëlëm yeeg xar yi te nga ko joxe ndax yàllaa ko bind wal an'aama xalaqaha lakum fiha dif'un wa manaafi'u wa minha ta'kuluuna wa lakum fiha jamaalun xiina turiixuuna wa xiina tasraxuuna lépp ci yàlla baxee ko su ko defee tamit tabaarakallaahu pexe moo mën a def bu la yàlla joxee tamit yeneen lum la mën a jox lépp ci moom la baxee ko kon jox leen yàlla alal ja yow baykat bi loo bari bari nawet xamal na yàlla la ko jox moo la xaral suuf si xaral la jiwu yu nekk ci biir ba mu sax moo ko wattu ba mu nekk gàncax ba ngay yóbbu leket nga yóbbu woon baa nga sëf ko ci mbaam bi ngay ñëw soppeeku na ay mbaam yu mbaam mi xattanut ngay sëf di andi rek te loola lépp inna laa faaliqul habbi wa nawa yuxrijul xayya min al mayti wa muxrijul mayti min al xayyi daalikumullahu fa annaa tuufakuuna anaam aaya quatre-vingt-quinze may laaj moom yàlla mooy laaj afaraytum ma taxrusuuna a antum tasraunahu am naxnu saariuuna ci yéen baykat yi ñu ne ko yaay ki ko bay suratu waaqia aaya soixante-trois jëm ba ca aaya soixante-quatre kon nag yàlla nee na lii ma jox leen dafa am ñu ma ca wax ne joxal ma leen leen seen xalal ji fa am xaq de wa fi amwalihim xaqun lissaili wal mahrum zariyati aya 19 seen xalal ji lee xam na xaq kiy ñàkk bay laaj xam na ca xaq jox leen ko ko bu ko joxee bu leen ko ñaax moo ko moom kenn du kenn du ñaax nit ki ci alalam ki kañ xamut tamanta laaj jox leen ko ca xam jeneen laaye jëf fële ci suratul maxaariji mu ne wa fi amwalihim xaqun li saaili wal mahrum xoolal ñaari waxin yi fii wa dafa ne wa fi amwalihim xaqun li saaili wal mahrum fee mu ne walazina fi amwalihim xaqun maalumun li saaili wal mahrum bële tabaarakallaahu saariyaat benn ba maxaarij boo déggee mu waxee bii ne wa fi amwaalihim xaqun li saa'ili wal mahrum loolu mooy joxe alal ci lu duhut asaka ndax boo xoolee lu ko jiitu dafay tudd ñooy rafetal ne innahum kaanu qabla zalika muhsinin kaanu qalla min layli ma maa yahjaun ba fuy waxee nag ne wa fi amwaali xaqu li saa'ili wal mahrum buntab ihsaan la kon yaay rafetal rek waaye yàlla laajul la ci asaka ndax joxe nga ko ba pare yaay seet nag ñu néew doole nga leen di dimbal moo tax foofu xaqun maalum beneen laaya ja nag ca aaya ja nekk tabaarakallaahu dafa ne wallisina fi amwaalihim xaqun maalumun lissaayili wal mahrum aaya vingt quatre jëm ba ca aaya vingt cinq boo gisee mu waxee noonu foofu asaka la moo tax mu nekk xaqun maalum kon yooyu yëpp nañ koy bàyyi xel gis nga yàlla bañ nit ki tuural la ndoxu xar-xaramam ci lim moom mu jël baatab xardu ji firi leb ne man yàlla maay leb de ku ma lebal lebal gu rafet te lebal ma mooy nga seet sama njaboot gi ñu ci néew doole nga yëkkati loolu nga xam ne xàq la ci seen alal ji nga lebal ma ko man maay fay damay fayee mooy dinaa la ko fulal fii ay ful yu bari ak xëlëk àllaaxira bu ko neexoon mu ne man yàlla maay ñaan waaye dafa gis ne baatam ñaan lu ñaaw la ndax mooy tuural sa moromam gor sa ndoxu xar mu ne nag kon damay wax ne man sa la si yuqridu laa qardan xasanan fa yudaa'ifahu lahu ad'aafan kasiiratan wallaahu yaqbidu moo lay daane wa yabsutu wa ilayhi turja'uun ni muy daane laa yi rek moo lay daane waaye kan mooy lebal yàlla lebal gu rafet ma fulal ko ko man yàlla maay xatal wërsëg yi kii maa ko xatal ba tax ma koy lebal ma koy leblu yow maa yaatal sa wërsëg bi balay leb waay kon nag li nga am lebal ma ci te lebal ma nga seet ku néew doole di sa mbokk mbaa duhul sa mbokk xaajoxoo ko nga jox ko ko te yàlla tax te boo koy def defal ko man yàlla lebal ma buñ dajee xëlëg ma la fay sa xol si ànd moo tax nit ñi imaamul qurtubi yu mu ne dañoo nekk ñetti xaaj xam nañ xaaj boo xam ne bu yàlla ne mënta la si yuqut laa xadan xasanat xaaj lañ boo xam ne rab laa nit ñu bon ñu suufe dañuy wax ne ay yàllaay Muhammad jëlee de ko ñàkk la ñun de ñu xoomal lañ ñi jiite nit ñu bon ñooña moo doon yahud bu bon bale ñu daan tuddee fanxaas abubakar da koo fekk ca jàngoom ba mbooloo xam ma dara ko mu ne ko maa ngi lay xoo ci diine yonantu bi jàngoon ngeen meloon nga ci tawreet li linjiil topp sa bakkan moo la ko teree gëm mu ne ko abubakar seen yàlla ji duma ko gëm ku ñàkk ñàkk ba ñuy leb ne man sa la fi yuqul laa xadan xasanan man duma topp yàlla ju may leb koo xam ne ñun ñoo xoomal moom mu ñàkk bëgguñoo leb Aboubacar kur fañ ko xar-xaram ba dajjeeku di nàcc mu dem ci yonent bi di ko kalaabe yonent bi ne ko loo ko def ba mu def la lii mu ne ko dara mu miim Aboubacar ne ko dafa xas yàlla taxoo ma ko gën a rëy yàlla yàlla lay wax ne ku ñàkk la moom mooy ki xoomal ba tax yàlla di ko leb loolu tax ma kur fañ ko buñ fasutoon nag moom kóllëre ma koy rey lim la wax ne. defuma ko dara waxut dëgg yàlla weer ko ne yàlla yàlla ne yonentu bi aboubacar wax dëgg de laqad samia allahu qawla alladina qaalu inna allaha faqirun wa nahnu agniyaawu ala imran ayat 18 ñooñu ñooy kuréel bu njëkk bi gën a bon ñoo xam ne tey la leen yàlla jox ci wërsëg boo leen koy laaj dañ ni jàpp na yow ku ñàkk nga yow ku torox nga yaafus moo la teree am sax liñ am ñoom ñu jàpp na seen ak xereñ ak seen i diplôme seen yaay ju mën a sëy seen baay ju mënoon a ñaan ak seen ab moo leen dimbale bañ xam lii loolu kum nekk di sa melokaana yaa gën a bon ci ñetti xeet ci jaami yàlla yi ku ñaareel ka nag mooy koo xam ne xam na ne yàllaay laaj te yàllaa ko dimbale ba wërsëgam yaatu ki ko yàllay laajal yàlla xatal wërsëgam mais du yaafusam mais saytaane boof ca bakkan ba di ko xirtal ci ak nay asaytaanu yaidukumul faqra wa yamurukum bil faxsaa'i boo ko joxee ñàkk de moom mii li ko tax a ñàkk bokk na ci joxe mu ne kon man duma joxe dara ba mu déggee wax ji rek lama sami'at hadha al qawl asarat as-suhha wal wa qadimati ragbata fi lmaali fama anfaqat fi sabilillahi wala fakkat asiran wala aanat ahadan ku mel nii ku bon la yàlla jotal sa loxo bam mu jot sa gannaaw ñii mu xeeñ leen ba seen loxo jotul seen gannaaw lu ñuy war a defal yàlla ci ay projet nekk fi ngeen duma ca def dara takat man am am nga loo ca mën a def bu la nit laajee ngay kurti kurti di xool soo korti kortee sa poos bi seet lu ma koy war a sarax kayitu dix mille franc nuyu la nga ne bii baaxut cinq mille génn nga ne baaxut deux mille franc génn nga ne baaxut mille franc génn nga ne baaxut cinq cent franc génn nga ne baaxut ba nga mujj jël weccat wu jëriñut dara di ko jox waa ji kii a ngi ñàkk ba xamul weccat yow nga xam ba xamoo weccat dara ngeen duma koo jox boobu xaaj nit ñu bon lañ te bari ci société bi yàlla jox leen ñu nekk ay milliardaires yuy deedeelu rek waaye nekkal ci sa deedeelu gi ba dee da xam ne yàlla buur la dafa laa joxoon pour nga séddale yàlla kenn ku nekk xam na li lay doy ci dëkkuwaay ci waruwaay ci lekk ci lépp kum jox lu ëpp sa soxla dafa laa séddaleloo yàlla na comme ne am séddaleel ma nga tëdd ca dana xam si muy jaar ak yow ku ñetteel ka nag tabaarakallaahu mooy koo xam ne ba mu déggee yàlla ne man dal fi yuqrid laa xadan xasanaan rek mu gaaw njëkkalante jëfee loola ne man sama yoon ci dundab suba su ma fi suba fekkee dinaa lekk dinaa naan dinaa tëdd li ma xam tey ma ma def ci sama dépense bu des ñi seen tay rafetul danaa fexe ba seen tay rafet lu ñu xam def ko ca loolu nag aaya jii ki ko pratiquer pire mooy benn saxaabiyu ñu koy tuddee abu daxdaax abu daxdaax benn saxaabiyu la ci saxaabaa yonent bi keroog ba laay ji wàccee dafa ñëw ci yonent bi ne ko yàlla moo ñuy leb te moom mooy ku xoomal walis leb yonent bi ne ko waaw waaw moo leen leb rek ngir bëgg leen a dugal aljaana yaa rasulallah inna laa yastaxriduna wa huwa ganiyun an il qard qaala naam yuridu an yudxilukumul jannata bi mu ne ko kon de tey ma lebal ko qaala fa inni in aqradtullaha qardan yedd man lii bihi ndax boobaa dana ma garantil man ak sama ñaari doom yi lee aljaana yonent bi ne ko waaw waaw mu ne ko yonent bi tàllal say loxo mu jël loxoom ya tàllal ko mu teg ca loxoom ne ko sama xalal ñaari tool laa xam di toolu toolu sardin yu baax benn ba ma ngi ca saafi la benn ba nekk ca aliya bu doon léegi nga ne ko benn baa nga almadi benn ba muñ ci baaliya bi mu ne ko nag ñoom ñaar ñëpp bis ni ki tey jox naa ko yàlla lebal naa ko yàlla comme bu ko liggéey mu dugal ma aljaana maag sama ñaar doom yu jigéen yi bis ni ki tey lebal naa ko yàlla yonent bi ku baax la du loo ko jox mu jël mu ne ko jëlal benn bi nga dundee ko yàgg sa njaboot benn bi nga jox ko yàlla doy na yàlla digalul kenn ngay saraxe talaata àllarba ngay dem ngay ngay dem di yalwaan yi déedéet mu ne ko kon nag comme yaa ma digal loolu ñoom ñaar ba ca gën a baax laay jox yàlla ndax lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbuuna kon nag ijal ahaduhuma lillahi wal wal uxra daa maishatan laka wa li iyaalika mu ne kon nag d'accord naa ba ca gën a baax nag moo nekk ca aaliya juróom benni taatu tàndarma ca ne juróom benni téeméeri taatu tàndarma moo ca ne six cent tàndarma moo ca ne waaye nag lépp jox naa ko yàlla ca la départ rek fekk waa këram ña ngi ca tool ba di witt abu dax daa woo umu dax ak doomam yene génn leen tool bi lebal naa ko yàlla jabar ju baax la am jabar ya ne ko rabiha bayuka sa njaay mi tonoxu na baarakallaahu laka fii mastarayta bu doon jabar ju bon mu ne ko nijaay kon torox nañ ji nijaay tee ngaa joxe woon tool bale wala nga dagg ci witt ki tàndarma ji dem joxe ko waaye tool bu day nii ku koy jox ku koy joxe waaye dafa ne ko wallaahi nijaay maa ngi lay félicité sa njaay mi tonoxu na moo tax luy nit di sàkku jabar ju baax a ca gën nit ñi ñett lañ boo gisee ay xale ñi nekk ci mbedd di fox kenn takk gut soxna ku la gën yaay la gën moo lay gën a set moo lay gën a yaru moo lay dàq jaamu yàlla moo lay gën a nangoo jàng bu ñu demee ba takk soxna nag nekk ay xale yu góor kenn ku ne samp kër ku la gën jabara la gën loo yaafuus yaafuus yow góor gi may déglu yàlla may la jabar ju baax sa yaafus ga du feeñ loo yambar yambar yow góor gi may déglu sa yambar ga soo xamee jabar ju baax ju farlu du feeñ waaye cey boo nekkee bi yambar yàlla may la jabar ju bon sa yambar ga dana feeñ ba feeñalaale leneen waaye bu xale yooya nag bu ñu demee ba màgget maanaam yaay yaa màgget su boobaa ku la gën dooma la gën ñetti état bii rek la doom la la mooy dund doomu aadama si ngay soxlawoo sa yaay fi ngay soxlawoo sa soxna si ngay soxlawoo sa doom kon booy tu tànk ba ba ngay takkee soxna ku la gën yaay la gën boo xasee samp kër ku la gën jabar la gën soo demee nag ba mu màgget ndeysaanam ku la gën doomal a gën doom yu baax yaay toppatoo seen yaay ya jëlee leen ca néegu ñax ya yégal leen ca étage ya fekk leen ngi doon dugg ay sareen ngi dugal leen avion yóbbu leen màkk teral leen kon nag kii jabar ju baax la ko yàlla may moo tax ba mu joxee toolam bi mu ne ko nijaay maa ngi lay félicité sa njaay mi tonow na bu doon jabar ju bon bëgg jaagar jaagar yi dafa ne ko nijaay waroo ko woon a joxe dama war dama ko waroon a jox ma nattee ko mbaa ma ñi dañ maa ndayalee nangam ma jaay ko def ko ca di tiitaru kon loolu baaxut kon kii di abu daa mooy koo xam ne jànga maanaam turu yàlla yëngal na ko ba mu joxee xalalam waaye dafa bëri si nit ñoo xam ne loo xooxoo turu yàlla jàngal quraan waar leen tey la seen xol ya gën a wow ñooña baaxut waaye yàlla ñam bëgg mooy walla walladina ida zukiru bi ayaati rabbihim lam yaxiru alayha summan wa umyaanan mooy ñooñaa gën a bon ñoo xam ne boo leen waaree tudd turu yàlla jàngal quraan seen xol ya dafa wow dañoo tëx ba duñu rot màggal yàlla waaye gaa yu baax ya nag mooy ñoo xam ne isa tutla alayhim ayatu rahmani xarru sujadan wa bukiyan mariama aya cinquante cinquante huit bële furqaan aya yëngu yëpp yëngu ci yàllaa ko gën dal yëpp dal ci yàllaa ko gën waaye am na ñoo xam ne turu yàlla mënul leen a yëngal billaahi ña nga dëkk ca quartier yoo xam ne jàkka ya matul ndongo yaa nga yalwaan seen mbokk yaa nga néew doole ñi dem Sorano mbaa ñu dem Grand Théâtre di baatare ñu leen di tagg rek wallahi cay ba nga leen di tagg bu leen seen bu la sa yaay jege woon bu leen seen yaay jege woon xaañ la mbaa jabaram ja nekk ay sàmba alaar topp ay musicien di maye ay oto walla ñuy maye ay kër mbaa ñuy baatare ay dix mille francs ak ay million te boo demee ñu ngeeg bor yuñ fayut xamel nit ñi ay xaq di leen liggéeyloo te du jeex ñooñu mooy ñi nga xam ne walladina ida sukkiru bi ayaati rabbihim lam yaxirru alayha summan wa umyaanan furqaan su ko defee kon nag yàlla ngóog moo ñu laaj lim ñu jox bëgg ñu ko sakkanal garantal ñu ko xuutalal ñu ko te du yàqu mukk moo tax mu ne wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu wa huwa xayru raasiqiin moo tax mu ne masalu lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali habatin nambatat sab'a sanaabila fi kulli sumbulatin mi'atu habatin wallahu yudaa'ifu liman yashaa wallahu waasi'un aliim baqara aya 261 ba tey moo la laaj asaka loo ko jublu mu ne laabal seen xalal yi bañ mu yàqu rek ak laabal seen bakkan yi ngeen bëgg ngeen jugee ko ci nay ak bëgge xam ak tabe xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna sala inna salawatuka sakanun lahum inna salataka sakanun lahum ci benn njàngir bi tawba aaya un ba ca aaya trois aaya dix mën na caa dem ba ca aaya tabaarakallaahu kon sakanun lahuma ngoog aaya jàngoog un ba trois dama ne bane inal abrara yashrabuuna min ka'sin kaana misaajuha kaafuuraa aynan yashrabu biha ibaadullahi yufajjiruunaha tafjiran yuufuuna bin nasri wa yaxaafuuna yowman kaana sharruhu mustatira lu mu ca teg wa yutcimuuna taama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asiran innama nutcimukum li wajhi llahi laa nuridu minkum jasaan wala shukura lu tax inna naxaafu min rabbina yowman abuusan qamtarira suratul insaan aaya un ba ca aaya cinq waaye tamit ñooy dugg ci allazina yunfiquuna amwaalahum billayli wannahaari siran wa alaaniyatan fa lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxsanuuna baqara aaya deux cent soixante treize ba ca aaya deux cent soixante quatorze ñoo nga tamit mooy allazina amanu wa haajaru wa jaahadu fi sabilillahi bi amwaalihim wa anfusihim azamu darajatan inda Allah ulaayka humul faaizuuna tawba aaya vingt kon nag aaya yaa ngóog di xiirtal jaami yàlla yi rekk ci joxe xiirtal jaami yàlla yi ci tabe di bañ lépp loo xamee ni nii tabaarakallaahu mooy ak nay te tabe lu xam-xam solo la garab la gu sax ci digg aljana yonent bee ko wax bànqaasam ya lëw ci àdduna bi ku tabee ku ne jàpp nga ca bànqaas ya doo ko baddu la ba ba digg aljana nay garab la gu sax ca digg safara bànqaasam yi lëw ci biir àdduna bi ku nay ku ne jàpp nga ci ab bànqaas du ko baddu la ba yaag moom ba digg safara kon nag yàlla na yàlla musal ñu ci nay te yàlla xiirtal ñu ci tabe góor ak yàlla ga maam xalifa ñas dafa daan wax ne xalal bu ko yàlla defee ci sa xol doo ca lekk doo ca lele boo dee dem safara bu ko yàlla defee ci sa ténk lii nga lekk ca lele ca boo dee dem aljana kon nag yàlla tabaarakallaahu bëgg na ku tabe yonentu bi de mooy ci gën a tabe ci jaami yàlla yi dafa daan joxe di joxe di joxe ba du xamatul joxe muy leb di joxe te ba muy génn àdduna dañoo fekk mu tayle benn mbubbam ci ab yahóot ngir ak dépense waa këram ci koo xam ne yaa xilif àdduna bi yépp bu daan joxe dafay mujj di wax ne kaana yuti ataa man laa yaxsha faaqatan abadan li mu ne hada ataawu man laa yaxsha alfaqra laaj ko yeynatu ak aqra ibnu xaabis ba mu leen di jox gëlëm ya mu jigi ko aqra mi ko gënoon bañ mu ne lii de mooy joxe koo xam ne daal ragalul ñàkk te ki gën a tabe ci nit ñi mooy koo xam ne buy joxe du sóoraale ñàkk waaye feeg yaa ngi sóoraale ñàkk doo am dara doo joxe dara yeneen bi moo gënoon a tabe ngelaw luy riddi kenn mantoon a garlante ci moom ci ak tabe rawatina weeru koor rawatina fukki fan yu mujj ya foofa la yonent bi gën a tabe anas nee yonent bi de génn góor dafa ñëw laaj ko mu jox ko ay gàtt gétti gàtt ya nekkoon ci diggante ñaari doj ya kooka ñibbi réewam ba mu demee lu mu wax dafa ne jébbalu leen aslimu fa inna muhammad fa inna muhammadan yu'ti man laa yaqsa faqatan yonentu mooy joxe joxe goo xam ne du ragal ñàkk genn góor ñëw fekkati ko mu toog mu ne ko xaw ma dara maa indi shay'un aa dara laa su ko defee nag yonent bi ne ko toogal bu ñu dara ñëwalee rek ñu jox la ko su ko defee Omar ne ko maa kallafaka llaahu ala am maa laa taqdiru alayhi waaye yow yonantu bi comme loo ko jox yàlla toggul la loo mënut yonantu bi loolu génn góor ci ansaar ñëw su ko defee aa ba mu ñëwee fa maanaam fa qaal rajul lil ansaar yaa rasulallahi unfiq wala anfiq wala taxsha min fi l arshi iqlaalan yonantu bi nekk mu ne ko dundaleel bul ragal ci borom aras ak ñàkk yonent bi muuñ bañ xam ak mbégte ca xarxaramam ba lam ko toon dafa ne ko bi haasa umirtu man lii lañ ma digal kon boo ko musanaan laaj ca amul dafay wax ne toogal ba yàlla ñëw bu yàlla ñëwee rek lu mu ko jox rek mu jox la ko su ko defee kon nag lii mooy tabeeg yonent bi tabaarakallaahu mos nañoo jóor xale li baxrayni ja ba bu ki toogee kii toog duñ gis duñ séenante mu toog benn palaas di ko joxe ba ba muy jógee ko lépp a jeex moom mos naa rend lu gàtt wax Aysatu ne ko saraxe ko mu saraxe ko des bopp baag xel ya Aysatu ne ko ni gàtt bi day xem xamuñ ci lu dul bopp baag xel ya mu ne ko ni gàtt bi day xem ñàkkuñ ci lu dul bopp baag xel ya lañ joxe ñoo ko moom lañ joxe wu rekk lañ ñàkk kooku mooy te yàlla Muhammad ci tabe tabeem ga xéeme na bu seyru nee na ko ki sa tabe gi sax ci la àdduna ak àllaaxira xamee loolu rek doyoon na loolu doyoon na tàgg kon nag tabaarakallaahu yonentoo ngoog jarir nee na jarir na abdullahi nee na yonentu bi dafa moom dafa dugg ci yonentu bi ci benn ci néegam yi mu fekk ma nga fees ci ay nit waaw waaw mi ngi fees tepp ci ay saxaba ci yonent bi ci ay saxabaam jarir mu ne fekkuma benn place lu dul am na ñu fa toog ca buntu ba yonent bi ñëw ndeysaanam ak la ma soo làmbaayam nga bu ko defee mu ne toogal fii jarir ñëw mu tëral ko lam ko jox nag jarir la xam nu mu koy mu koy wëlbati di jooy suma ataahu li nabi wa qaala lahu maa kuntu li ajlisa ala sawbika akramaka allahu kama akramtani fa nasara nabiyu yaminan wa shimalan wa qaala ataakum karimu qawmin fa akrimuhu mu ne dafa fekk nee baa nga fees amul presque fu mu toog yonentu baa ngi bootu ba mu ñëwee mu lal làmbaay nga ne ko toogal jëriir mu ne ko wallaahi mu jooy ndax teraanga jooja ne ko wallaahi ñëwuma la ngir ñëw di toog sa kaw yére bile waaye ni ma terelee yàlla na ko yàlla terelee yonent bi xool ko nday joor xool càmmooñ ne ko ku tedd aw nit bu leen ñëwalatee na ngeen ko teral xadis la bopp xaakim moo ko solo kon kenn du yonent bi tabeem ji tamit saxaaba yi roy nañ ko ca mu ne moo tax Ibnu Mas'ud mu ne yàlla bi biddee jaamam yi dafa yër xool xool ba ca gën a sell gën a baax muy muhammad mu tànn ko jox ko alquran jox ko risaal ak nubuwatu mu xoolaat xool yi ña ca gën gannaaw saxaba ganaaw yonantu yi muy saxaba ya mu ne leen yéen tànn naa leen ngeen àndandooru suma yonantu bi moo tax ñoom nit ñu baax lañ xoolal abubakar ak tabe ñeen fukki junne dërëm la xamoon yum denc mu bénéfice ko ci am njaayam waaye tabaarakallaahu gannaaw lislaam nit ña ñëw di xéemu Aboubacar taxaw gàddaay ànd ak yonent bi am amul lu dul juróomi junney dërëm juróomi junney dërëm la dese te ñeent fukki junne ba muy moom la xamee woon ci lislaam moom la xamee woon ba muy dugg ci lislaam waaye tamit Aboubacar bi mu méngoo xilaafa ak yonent bi mu ngi di xalifaab jullit ñëpp. mu jigi aqasa siyaaban lahu wa zahaba bihi ila suuqi li yabiahu mu ñàkk ñàkk ba jël benn yéreem dem ca marché ba di ko jaayi ñu ne ko yow xalifaab jullit ñi looy def nii mu ne sama kër dara di su fa xaw ma ñam woo ma dundee maag sama waa kër ba bëgg jaay sama mbubb mi ngir xam luñ dundee koo xam ne di ngay dugg ci lislaam yaa gën a riis ñeent fukki junney dërëm kooku boo ko daan évaluer ci jamono ji ay million la nga di ko joxe di ko joxe ba ba ngay gàddaay diir fukki at yeeg ñett daanaka ba ngay gàddaay loo dese juróomi junne dërëm ci la yonent bi jël sax jënd ca jàkka ja palaasu jàkka ja nga dem bi ngay jiite jullit ñi xamatoo dara far ba nga jël sa menn mbubb di ko jaay ngir loo déplacé des dépenses kii de xorut yonent bi xorul islaam xorut tamit population bi mu jiite kooku mooy Aboubacar kon Aboubacar a ngóog léegi nag gaa yaa ngóog gaa yu baax yi duguñ ay malaaka de waaye malaaka yi man dañ leen nawle ci mën a ànd ñoom Aboubacar xoolal limu mu njot ci ay ñu néew doole ñu jàppoon jaam daan leen mbugal ci xeeti mbugal yu metti moo jënd bilaal tabaarakallaahu moom Aboubacar li mu jënd ci ay jaam kenn xamut ni mu toll waxoon naa la ko bu ma lay firil hamsiya ba waaye keroog xaswatu Tabuuk xoolal la ci Aboubacar génnee ci xalal xoolal tabaarakallaahu fi xaswatu Tabuuk maa fataa nabi sama baabal jihaad bil maal Aboubacar a njëkk a andi alal lu mu andi ñeenti junney dërëm la joxe tëral ko ci kanam yonent bi. yonent bi ne ko ndax dese nga dara pour sa njaboot mu ne ko dese naa fa kay loo fa dese mu ne yàllaak ak ku leen xam kay ku la xam yow xam yàlla ñàkkatu dara dara laa dese lu dul yow ak yàlla xoolal loolu xoolal ma Omar ibnu Xataab shahidul mihraab fa faaruqul islaam jox ñu ñu darsu ci solo nañ ne ba mu jotee suufu xaybar la ñëwal yonantu bi di ko diisu ne ko yow yonantu bi jot nañ suuf ca xaybar musu ñoo xam xalal ju mel nii ju ko gën a cher ci man xalal ji ma xam ma koo xam loo may diggal bu la neexee ma jàpp cosaan la saraxe lépp lu cay génnee yonantu bi ne ko saraxe ko ndax kat fata saddax bi fata dégg dam dama ko waxee loolu Omar saraxe ko xayra annahu laa yu baaxu asluha waaj ko sàll kenn du ko jaay kenn du ko donn kenn du ko maye mu saraxel ko fuqaraaw yi ak woy jegel ne li ak ñu néew doole yi ak ibnu sabil yi ak ñu xamul dara ba yonentu bi laajee dafa xaaj alalam gi ci digg ba ñëw jox ko yonentu bi yonentu bi laaj ko ne ko loo dese mu ne ko genn wàll ga mu ne ko yow yàlla yàlla nga barkeel ci li nga joxe barkeel ci bi ci li nga dese loolu la ko defoon keroog xasut Tabuk yonent bi laaj ko ne ko loo defee xataxal ab xayta li ahlika shay'an qala naam taraktu lahu mislahu kon kooku mooy Seyduna Omar xam boo ma toppee suba ma wax la tabeek Seyduna Usmaan gi kenn moom moom lam fere ca danaa la wax Abu Ubaydata ak Muaaz ibnu Jabal danaa la wax Subayr ibnu Awaam danaa la wax Abdurahmaan ibnu Awf danaa la wax Sayyidatuna Aïcha ak a tabe xool danaa la wax Zeynabu bintu Jaxsin ku tabe kooku naa la wax Abu Zarin al-Ghafari yi ni mu tabee xoon ñii ñëpp ñooy ñoo xam ne la leen yàlla dénkoon dañ koo nangoo joxe dese yàlla te ko xam yàlla ñàkkoo dara ku ñàkk yàlla amoo dara waaye loolu suba ci waxtu wi lay doon insha allahu in uridu ila al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu ilay unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di del siwaat ci kar